waaw dina am tiwtaal naaw Moussa xam ñu ne déedéet la mokkal ba ji moo xam loo Moussa la dal ma gis la Moussa gis ñu ne ndax mu ngi demee ni ki rek ci gaaw-gaaw lu naawoon tey fi mel na tey jigéej bu naaw dóor benn picc wala mën nañ ko misaale ci nit koo xam ne dafa gisul oto bi ba oto bi agsi ci moom rek bi muy agsi ci moom rek dal na mënuñu ne nit ki gisul oto bi waaye gis gi mu koy gis dafa ànd ak dee gi dafa ànd ak dal bi ñu ne Moussa it xamam gi noonu la ànd ak gis bi tax gis gi mu ko gis moo ko xam loolu waaye lu ci mën di am nañu tëjal li tëjal lin sifaatiyen la tëjal lin sifaatiyen moom la li nga xam ne nag mooy maxza bi maanaam li ci am li ci gën a am maanaa mooy Moussa ku xejoon la ci boromam ba xejj googu tax mu am ak moom familiarisation familiarité boobu yan ko maanaam porté ko ci muy laaj suñu borom azza wa jalla nga ma gis la ndax àgg naa ci foo xam ne war naa la gis ñu ne nag gis suñu borom sax li tax Moussa laaj ko lu mën a am la foofu bokk na ci ahlu sunnati lay ne bu yowmal qiyaamee way taxe ñu daañu gis suñu borom tabaraka wa taala comme ni ko xadis bi waxee ndax yonent bu toll ne Moussa bu fekkoon ne xam na ne suñu borom kenn du ko gis mukk kon du ko laaj waaye nag dafa fekk ne gis gi mu ngi aju ci roox kese ndax jëmm amul kàttan waxtu woo xamee ne roox mi am kàttan te ñu bind ko ci leer yàlla waxtu wu tàggu jëmm ba nga xam ne set na amul bàkkaar benn gàtt niwul ci moom dana mën a gis suñu borom tabaraka wa taala comme ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee yowmal xiyaam da ngeen gis suñu borom azza wa jalla maanaam bu ngeen demee àjjana ba noppi da ngeen ko gis ni ngeen di gisee weer wi laylatul badr di nga laatubaa mu laatubaa mu na li yetihi kon ñu dellu ci ne muy ibrahima muy muusa muy ñoom ñoom ñëpp kenn ku ci nekk xej nga ba àgg foo xam ne laaj nga suñu borom la yar na la gannaaw ba mu la jàjjee ba mu la yaree am na lu mu jëflanteeg yow la mu jëflanteeg ñoom mu ngi wuute ci comme ni seeni maqaama wuute dana doy tuuti ci am na loo xam ne du ma ci àgg waaye ci dënnu googu li sëñ bi waxaat ne booba de dafa am lu ma laajoon sama borom waaye defe naa ne laajatuma ko ko de loolu maanaam familiarité maanaam imbisap la li ñu tuddee imbisap mu ak li ñu tuddee it mënuñu ko wax ku jàngul tasawuf faaw nga xam tasawuf dëgg-dëgg am na ci yoo xam ne bu ma ko waxee ndax man tam sax dafay am jamono yoo xam ne dinaa leen ko mën a wax ci wolof dana ma leer li ma bëgg a wax dana ñëw ci sama xel am na jamono yoo xam ne du ma ko mën a na ma ko bëggee wala lii saa du ma ko mën a wax ci wolof dégg nga waaye man ci man sama bopp li ma yéem du ne dënnu gi dal na te wàññiwu ko dara waaye fi mu àgg ba laaj loola ak la mu laaj ak ni ñu ko ko tontoo ak la ca xewaat mooy li ma yéem duñ ko waxtaane waaye mbirum kii boobu nett na ko boole nañ ko ci karama yi mu nett li fii mu dal di ci tegaat bi kii boobu jeexee beneen kéemtaan boo xam ne moom it lu bari la lu muy am gaa ñu baax nañ waxuma tax ci ñoom waaye ci taali bi sax faral na ci am kenn mu yónni woon jén la ñu am nit ko jox addiye ne ko joxal ma ko suñ bës kooku di ko nattu am lu mu ca wàññi denc ko bi mu dikkee ba joxe loola mu xamal ko ne lam la joxoon ëpp na loolu demal ci bërëb sàngam ca nga denc nangam la ko def mal na ci ko am boobu kéem kéem tànn la naam waaye itam su ñu demee noonu même ñi nga xam ne sax yaar nañ leen ñoom ba xamal leen loolu lu yomb lay doon ci ñoom lu dul dara lay doon ci ñoom nag li ba tey xisa boo xam ne ñoo moo nuroo ak boobu moom itam keneen koo xam ne dafa ñëwoon ci ziyaare moom it fekk bi muy ñëw am na lu mu denc lu mu nëbb du ko barab moom itam mu nekk li ko ko teg ci ci yu bari teg ci ñeent xisa mu nekk li ne moom ci boppam li gën a kéemaane ci moom bokk na ci xam-xam yi nga xam ne xamoon na ko te booba amagul ñaar fukki at nee na loolu ñu bari ci ulama yi nekk nañ ko man mii sax booba xale laa am na li ma koy laaj am na li ma ko laajoon ñu ànd jëm kër sëñ Louga ci xasida ji ñu bëgg a wax benn téere la bu ma def ñu ko wax fatul awin am na lu ma ko ci laajoon ba ma ko waxee ba noppi mu ne ma mu ne booba day li ma la màggee bariwul maa ngi am xaw ma lan ñaar fukki at ñu manqué moom dal di wane ne ci waxtu yooyu la bind xasida gi xasida gi sax defe naa ne ki nga Abdoulaye Diaw moo amoon laaj yu bari bu ko doon laaj moo tax mu wayoon ko yaqulu ahmadu sawiru bañun huwa murtajiyan fathal azimi man hu moom laa nekk yoon léegi ne sëñ Mat Diaw ko xam ne na moom la ko njëkk a wax حمدا لمن ما عشت لا أتكل إلا عليه حبذا المتكل ثم الصلاة مع سلام الفائق على النبي الفرد حب الخالق وآله وصحبه النجيم إنا بالخيرات والعلوم ما دام ذو علم به ينتفع وينفع الناس به ويشفع يفتتح هذا وأكتب لعبد الله شيئا من الأدب بالإله قد أكثر سؤال لي لجهل حالي وما أنا بذا بأهلي mu ne xasida gu gudd la boo xam ne mat na téeméer ak fanweer ci ay bayit ci ay weer mu ne moom doyloo na bayit yi mu nekk li fii rek nee nga mu ne ba mu koy bind xale la mu ne booba weesuwul fukki at ak juróom-ñett mu ni nag moom nekkoon na koo xam ne dafa beru woon ba muy xalel la beru woon nit ñi jaxasoowul ak ñoom te ba mu ngi soxla woo woon mbiri suñu borom rek ak farlu ci jaamu yàlla nee na daana julli bis bu nekk téeméeri ràkka ak ñaar fukk lu bokkul ak farata yi loolu itam beru bu mu daan beru bu ñu seetee ne maanaam ñu ñuy wax al akabir waxuma sax rek wala yi maanaam même borom xam-xam yi savant yeeg yi yëpp ku ci bëgg a jëriñ nit ñi xam naa ko keroog da nga def i'tizal maanaam da nga beru benn muy savant bi wala philosophe bi muy xalaat di xalaat benn muy na muy natee adduna mbirum adduna bi muy affaire économie muy politique muy li ñuy wax maa wara a tabia maanaam métaphysique lu mu ci mënti doon nit ki ki nga xam ne daal moo war a sut nit ñi moom moom mas na wax ni ma kay sut nit ñi du faale nit ñi booba am na taxoon mu wax ko waaye loolu itam moo dellu ci lii muy gaa ñi nga xam ne yëpp constitué nañ fi ay système wala ñu def ay ay découverte wala lu ñu fi mën a def nit lañ ñoo xam ne am na xalaat yu leen dominé woon ba tàqale leen nit ñi li gën a bari ci seen jamono dañ daan sore nit ñi Cheikh Ahmadou Bamba daf daan jékki-jékki réer wax ndawam ñu di ko seet fu nekk dañ ko daan gisee ci gort boo xam ne ñu ñu bari duñ fa ñeme ndax dana am ay rab loolu yëpp doyu ko woon ba mu ñaan suñu borom ba dem ci géej gi juróom-ñetti at yu manqué yom fa am yëpp yéet googu la woon buñ seetee itam même ci ñi nga xam ne nit yi adduna lañu muy yeneen savant yi philosophie comme ni ma ko waxee léegi ñoom ñëpp dañuy am li gën a yàgg ci seen li gën a bari ci seen dund dañ koy wéet te dañ koy wéet benn ñuy étudier dara wala ñuy jaamu gis nañ ne sallallahu taala alayhi wa sallam daf daan dem fu ñuy wax xaaru xiraa bokkul xaaru xawr ci nëbbu woon moom sidna Abu Bakr ci ci kàmbu gàddaay gi waaye xaaru xiraa dafa daan dem di fa am ay weer moom ba tey la mu tasawi fay tuddee xalwa mooy yéet yooyu bépp doomu aadama bu nar a def lu am solo da nga fi naan tàngaay bi dañoo ubbi dañoo ubbi fii fii xaru tàng bu nar a def lu am solo ci adduna bu mu mën ci doon fokk nga nangu sa bopp wéet wéetaay yooyu kon li mu wax kon mënu la ñàkk gannaaw wéet yooyu moom dafa njëkkee woon dugg xalwa ndax daana wax ne bépp wàll yu bu fi ñëw bu njëkkeewul dugg xalwa dana ko mujjee am ko njëkkee woon daana gis ci genn xasida gu ne ci kanam dana am occasion waxtaane loolu wax ci laal tuuti lu nekk li fii askanam ci biir bi mu bokk ba def istishhad maanaam mu cité bayit yoo xam ne moom sëñ bi ci bopp moo ko def maanaam si في قصيدة قني قالوا لا أنت سبي قصيدة قني نان عشاقت أطلال أغاث المعالم وإن بين بيت من بدايتنا للأولياء نهاية نهايتنا للأنبياء بداية sunu tàmbali yemukaayu wàllu yi la sunu yemukaay tàmbalikaayu yeneen am na ay sawaahid yu bari maqam bi ñuy wax fardaaniya ne rajulul fardu mooy moo cay nekk fard soo seetee al futuhaatul makkiya ci Muhyiddin ibn Arabi danañu ne maqaama benn rek la bu nekk diggante ak siddiqiyatul uzma ak nubuwatu tashriya siddiqiyatul uzma mën nañ ne wilaaya mënu ko weesu waaye nubuwatu tashri' mooy maqaama yonent yonent rek moo ko jagoo ibnu arab yi dana wax ne maqaama fardaaniya boobu maqaama bu étrange la maanaam bu kéemaane la bu wali yu bari umpale la lim na sax ci ñi nga xam ne seen zawq xamu ko li maa nekk al imam abu hamidin al ghazali mu ni ndax jëmm ji tey toll nee na mën nañ koo fàggu suñu borom it mën na koo xéewale jaar waaye lu jafe la mu ne ndax jëmm ji tey toll dafay koo xam ne kii bu fekkoon dikk na lu jiitu muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent lay doon gannaaw nag gannaaw muhammad sallallahu alayhi wasallam benn yonent dootu am kooku bu ñëwee ku àgg ka àgg ci maqaam boobu mooy al fard la bil fard kon ku fa àgg yaa mën a wax ne sama tàmbali mooy yemukaay wala sama yemukaay mooy tàmbalikaayu yonent yi ndax lan mooy tàmbalikaayu yonent mooy irsaal yónni ko ci bindee fii woowal nit ñi ci ci yàlla loolu nag feeg waxuñu la ko nekkuloo yonent te kon sa tàmbalikaayu yonent mooy loolu mu teg ci ay ñaari bayt yoo xam ne dañu wax ne suñ mbàkk si dafa ko waxoon mais booba dafa am lu mu ko doon laaj ci mbirum tasawuf ne ko yow mi nga xam ne mos nga ci naanu gaayu mag yooyu yow laay laaj laaj bii mos googu mu ko wax nag mu di ko wan ne tolluuma ci man dama dama màndi ba wuri wuri mooy lan ku màndi ba sa màndi te rees nga dillu si waat nekk nit loolu itam dafa laaj ay tolluwaay yu bari la أنا الشارب الريان قد ذقت من قبل فصحي بعد الصبح يا حل يا حل ما أجنان بمندي بما ما dafa yàgg sama wuri bi nga may gis ma mel ne nit képp man see ko jiit woon waaw ndax dañu ne dañu ne wàlliyu al wilaayatu tasadu wa nubuwatu tanzilu wàlliyu feeg mu ngi yéeg day gën a wuteeg nit ñi rek day gën a wuteeg nit ñi dana am ñoo xam ne dañuy dem ba boo leen bettee dee boo leen bettee gis leen dee dañuy am na yoo xam ne dañ koy toll dañuy toll melo yoo xam ne boo leen gisee doo leen da nga xam ne du ñu niroog nit ñi waaye yooyu yëpp bu ñu ko weesoo nag ba àgg ba àgg fa nga xam ne mënatu ko wees dañuy dellu saat nag ba mel ni nit ñi nag du kenn du leen xam ne nit ñi loolu moom lañ tuddee saxu mu ne nag taxawam googu moom ci gannaaw màndite la mu giñ ci yàlla ne ko billaahi jaawastu lmaratiba kullaha wa min bahri datillahi nahliya wal allub mu ne giñ naa ci yàlla ne jéggi naa martaba yi martaba yi yéeg yépp maa ngi naa ne ci jéeju jëmm yàlla jéeju jëmm yàlla laay naa ne sama naan bu njëkk ak sama naanu ñaareel maanaam ci jéeju jëmm yàlla rek laay naa ne bayt yi am na waxtaan woo xam ne dafa am bayt yu mu yu mu xam ne day dugg ci biir yooyu moo tax ma bàyyi ko noonu ba àgg ci yooyu bu fekkee ni ministère bi moo di xayaata rabbul wala boobu sëñ bi daal di ci teg ne ñaari bayt yi mu ne tont la ñeel sëñ mbàkki bu sa bu ñu ko dee laaj maanaam mbiri awliyaa yooyu ne ko yow mos nga ci seen naan bi sëñ bi teg ci ne moom ci bind téere bi sëñ Ibra bu ma dajale woon li ma xam ci moom ci ay jëf yu kéemaan yëpp nee na kon dana nekk téere bu mag bu fees dell mu ne waaye gàttañ lu naa ci loolu rek mu ne ndax ne juróom-ñett fukki at ak ñaar lu dund ci àdduna loolu itam am na doom bi ma ko laaj te ko jox ma kaamilu alxuraan bi mu ko joxee li mu ubbi suuratu yaasin ne ko limu laayay saar wi laay dund ci adduna mu boobu bu ñu si suuratu yaasin gis naa ni wax sama noonu la muy juróom-ñett fukki laaya ak ñaar moon ko ne ni laayay toll laay dund ci adduna fekk booba maanaam daal xëy na am na at yooyu te booba la fi jógee ci at mooma moom defe naa indiwul kon indiwul bayt yooyu man wax xayaaka rabbi wa rahmaanu xayaaka bi shuhudi ma ak tamit yi nu bay
nu di ko mar jamono ju ne ci karaamaati Cheikh Ahmadul Kabir mi nga xam ne bu ko xa nit ñi xame woon niñ ko war a xame danañu dikk xettiliku ci àdduna ak alaaxira sant nan la ji yàlla na yàlla guddal soo fan te nga nu ko yàgg te nga yàgg nu ko defal léegi nag ñu jaa jàll ci question yi koo xam ne ki am na benn laaj ci mbirum Cheikh Ahmadul Kabir Mbay moo bëgg a xam e ubbi nañu question yi ku war a laaj dara nga laaj
wàlliwu si jóge kay mën nañ ko liggéeyal ba am ngërëmam ndax wàlliwu nekk dafa am cër feeg mbiram jeexagul nit mën na koo liggéeyal ba am ngërëmam dafa fekk ne liggéeyal ko bu fi nekkee moo gën a yomb liggéeyal ko bu fi nekkul ci anam yu bari awliyaaw yi dañoo wute am na si ñoo xam ne ñu néew ñoo ci si jóge ba noppi di di mën a tërbiyee seen ñooñ waaye cheikh moom bokk na ca waaye ki nga xam ne moo koy liggéeyal bi fi teewee bi mu fi teewee bu fekkee ne keneen liggéeyal na ko te néew fi bu fekkee ne ñoom ñaar ñëpp nit yi kese rek lañu fi ko liggéeyalal ba mu fi nekkee dana ko ëppalee daraja yoo xam ne ay téeméeri téeméeri téeméer la kon ñaari nit ñoo xam ne nit ordinaire lañu bu ko kenn ki liggéeyalee bi mu fi nekkee kenn ki ci des nit ba mu dem mu liggéeyal ko du ñuy mën a yem daraja mukk ki nga xam ne nag dafa seen nekkatul mu di ko liggéeyal fekk xam na ne mbiram jeexul mu ngi def bu fekkee ne nit ak ku yàlla defal leneen la mën na koo liggéeyal ba jot wala weesu ku ko ku ko liggéeyaloon ba mu fi nekkee loolu yëpp lu mën a am la ndax itam wàllu yi nga xam ne suñu borom may na leen ñu jóge fi ba noppi di tërbiyewaat ak di jubalaat itam li ci gën a bari maanaam ay tànneef lañ koy defal wala boobu nga xam ne nit ki dafa liggéey mu ci farlu ba àgg ca àgg ca mën koo jëflanteeg ñoom ñu jëflante li gën a gàtt daal moo di ngëneelal yàlla dafa ajuwul bu dul ci coobareel yàlla te ab cër la nit ku ci nekk cër nga am boo xam ne boo liggéeyee ba am dara it loola fekk na sa cër la woon bu fekkee ne sa cër la nag suñu borom dana jàppandil asbaab yëpp maanaam sabab yëpp ngir nga mu koo def ah am na nag loo xam ne moom ki ñëw gannaawam ci ngëneel ki ko liggéeyal ci teew ka ñëw gannaawam du ko mën a am ci xorma ndax loolu bu seetee itam ne saxaaba yi radiallahu anhum yemuñu waaye ñi ca gën a féete gannaaw te am darajey soxba soxbatu rasulullah maanaam ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñeneen ñi ñëw gannaawam mën nañoo am yeneen may yu bari waaye ba tey dana am loo xam ne ñee dana ko am te duñ ko am mën nañ leen a raw sax nag noonu daal la xaw a demee
man Serigne Mbaye maa ci bëgg a laaj ñetti question ci mbirum Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye bala may laaj nag danaa sant Serigne Abdou Salaam mi nga xam ne moo sabab jotaay bii ndax lii lu ñu war di faral di def la li may laaj njaal benn gu moo di damay laaj Cheikh Ahmadou Kabir fan la jëkk gisanteeg Serigne Touba ak lan lañu jotee ba dugg ba duggante duggante boo xam ne bii mboolem ku nekk ca tarixatul murid yi xam nga ni mu toll ci sëriñ Touba muy benn laaj bi ñaareelu laaj bi Cheikh Ahmadou Kabir nekkoon na Jolof nekkoon na Pete may laaj ban saba te jamono yooya ku mel na moom wala ku mel na sëriñ Touba nasaraan bi fi nekkoon day am ci yow aw yoon lan moo sabab dikku dugaam ba toog fii ba jëmmi tey jii ak itam ndax nasaraan bi mas naa xalaat jëme ci moom benn xalaat wala musu koo def ñetteelu laaj bi moo di dama yàgg dégg ñu wax ne moom sun borom ci boppam daf ko sant mu nëbbu nëbbu googi itam lu tax mu nëbbu ba noppi tey feeñal karamaat yoo xam ne nun ñépp ku ci lu waay gone gone dégg nga ci moom mu jëf-jëf yoo xam ne xam nga ne wal yoo ko man wal yi ñi ñuy jeeñ wàll yi sax ñu bari mënuñu ko ci lu tax loolu
loolu jëkkoon wax loolu itam maa ngi daañu ko di nettali mooy moom moom ak Cheikh Ahmadou Bamba am nañu mbokk bu jege boo xam ne mag ñi xamoon nañ ko lool daan ko doxal itam Sëñ Tuubaa nekk Bawol moom mu nekk Njaambur ci nekk di dégg sa morom booba it maam Cheikh moom gone la Sëñ Tuubaa daana fi jóge di dem Ndar daana fekk ku ñuy wax maam as kamara ngir di sabablu dem gànnaar xam nga ne moom ay waajuram xaadir la ñu woon te ci yoonu xaadir la ñu nekkoon moom ci boppam bàyyam a njëkk a nekk sëriñam ci wet googu jël na wirdu xaadir kon bind na sax ne jàpp na wirdu xaadir juróom-ñaari at jàpp na wirdu tiijaan juróom-ñaari at jàpp na wirdu chazeli juróom-ñaari at ñooñu yooyu yëpp boo seetee sax xikmatu si Ahmad Bamba wax na ca ay joteem ak ñooñu ci soxom yooyu mu doon maanaam déplacement yooyu mu doon def di dem ñëw na benn bis te war ak fekk na boobu maam Babacar mi jur maam Cheikh nelaw na nekkatu fi waaye Baye Abdou Mbaye mi ko amee woon te nekkoon magam ñu bokk Baye waaye mën koo jur amee woon ko itam leenu sëñ Tuubaa bi mu njëkkee gis Cheikh dafa ne ko moo xanaa yaay njóor si may dégg fii ñuy wax mais mu ne ko ah man de fii laa nekk ma lañ tudd Ahmadou Moukhtar mu ne ko yow a rek nel mën a rek foofu itam ay wax yu bari lañ fiy nettali am na ñu ne daf ne ko dégg naa day li la sa mbokk yi waxal waaye dama bëggoon nga ñëw ma làq la bala ñu lay góob te ñëruloo ndax xale nga li nga xam ne itam nag ci ki ma ko jëlee moo gën a jege dafa ne daf ne ko man de dama bëggoon ñu jox ma la nga ñëw ma yóbbu la jàngal la nee ni bi nga xamee ne wax na ko sëñ bi mu ne ko waaw waaw man de sama bàyyi nekk waaye sama mag gi ma amee daal moo ma yilif mënumaa def dara te santuma ko wala tàgguma ko mu ne ko waaw mën naa la ko mën naa ko waxtaan ak moom mën naa la ko tàggul mu ne ko damaa bañ kon mu defee ne damaa digg ak yow ba noppi dem di ko ko yëgal waaye fi nga jëm mën ngaa dem rek boo wàññi ko da nga fekk ma tàgg ko bu fekkee ne lu ma wax rek boo ñëwee danaa la ko wax nee sëñ Tuubaa ne ko waaw wax kon nag nañ def noonu mu gën ba mu demee nee mu wax ko Baye Abdou mu ne ko waaw baax na bi mu ñëwee sëñ Tuubaa dellusee nee mu ne ko Ahmadou mii de lim ma wax bëgg naa ci ndax maa yoo ci bokk yéene lenn dong moo ci sama itte àlluwaam bañ a dog daañu wax mas naa dégg ku ne bi mu demee sëñ bi bi mu koy seet maanaam fu alluwaam toll daf ko njëkk ne maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum aba ban àtte la taxawee foofu mu ne ko dafa nasab mu ne ko lu tax mu ne ko xabari kaana la maanaam àtte grammaire arab la naxwu ñu ne bi nga xam ne ne Baye Abdou wax na ko loolu am nañu ci nettaliwaat ne Baye Abdou nee na leen xam nga ne booba sëñ Tuubaa ni ko nit ñi xamee xamuñu ko woon booba booba it jëmm la woon ñu xamoon ne ku mën a jàngale ku jub la ku am xam-xam la ni doomi soxna yi loolu lañ ko xamaloon ñenn ñi daanañu wax naan daal nit du nitu kese nangam la wala yu la ak yooyu loolu itam daanañu ko wax ñu ne Baye Abdou nee na leen bala ngeen a dem de da ngeen ma ñagal sama toolu loof bi am na ñu nekk ci loolu dañu dégg naa ci keneen sax koo xam ne nee na ci moom la ko nangoo nee na am na garab yu Cheikh daan yéeg di dagg ay car nee na sëñ Tuubaa di felat ak a xët ak a xëcc di wat di yóbbu bi mu demee itam yóbbu ko xamatuma nag foofu ndax booba defe naa ne Touba Kile buñ ko xaw ma Daaru Salaam la xaw ma Mbàkke ci boppam daanañ bokk benn lal bu ñuy tëdd ba mujj nee ñu maam Cheikh ci boppam ne moom du ko du du ba tëdd teeg yow mu ne ko da nga may def mag rek ma def la rak dégg nga mu ne ko waaw waaye man de du ma tëdd teeg yow bañati di tëdd ak moom sëñ Touba nag dafa amee woon booba itam ndax mu xam nañ ne moom ci bi waajuram di dund am dem nañ ba mujj moo amee daara ja di jàngale moom mooy jàngal nañ fay jàngal ñëpp ci waxtu ndawam am na téere yu bari daf ko versifié maanaam moo ko woy def ko raja ci jamono ndawam ci dund waajuram tax na am na ay rakkam yu bari yoo xam ne ci ay téeram yooyu mu taalif la ñu jàng bi nga xamee ne baayam nelaw na itam te baayam amoon jaxasoo ak ay lajjoor ak ñooñu moom dafa dagg diggante bi dagg gu gu gaaw brusque mais moom ñooñu nitu àdduna lañ jotewul ak ñoom dara dal di demit yóbbu amee nag daara ja di leen jàngal wax nañ ne dafa tool jamono yooyu fa Cheikh nekkee daf ko daan tëralal moo maam Thierno suñu Ibra Faati bu leen tëralalee ba noppi ñoom ñoo daan jàngal yi ci def jamono bopp bi ñu demee ba nga xam ne nag itam ah sëñ Touba daana ko labiré di ko tegtal daana ko yar di ko xamal itam waxtu wa nga xamee ne itam sëñ bi dem na ba xat xat goo xam ne amatul jotu jàngale Cheikh jóge dafa dem jàngi ne ci Alaaji Malik Si man mi nettali na ma ne booba day arol la ma wax ba tudd mbiri arol ci way mu ne ma arool day amul solo man de alaaji Malik si ba ma nekk ak moom it booba sax moom nee na jàngul arool bu ma saan way man la koy jox ne ma seetal ma ko man ko tax ma du jànguma arool mu ne waaye man ma ko jàngoon it xam naa ne amul solo loolu moo ma ko wax gannaaw gi itam bi mu jógee ci njàng moom itam dañu di jaxasoo sëñ Tuuba di dem fa moom ko ziar gannaaw loolu itam mën nañ ne ba ñu fi jógee seen diggante dañul am na nag yu nekk ci biir yoo xam ne itam bari na daanaka itam laaj ci mbirum njàng am na sëb ma sëñ ma saxit loo nekk li ne ci ne Cheikh moo ko doon wax ci saaru nam li fa lamma raahu mustaqiran indahu nee na mustaqiran jooju ci atte naxwu nee na mas na ko laaj sëñ Touba ci jamono yooyu ni ko loolu de foofu de noonu rek lañ fi daan jaare mu ne bi mu ko laajee Alaaji Maalik mu ne ko foofu de noonu rek lañ fi daan jaare nee na mu toog ba suñu borom xamal ko ko falamaa ra'aahu mustaqirran indahu fekk mu ne ko xanaa du xaal dañuy wax xaal du jiitu borom ba bu fekkee ne jar nañ ko te alquran xam nañ ne moom naxwu alquran naxwu dañ ko mën a génnee ci alquran waaye alquran kenn mënu ko critiquer ci naxu kon nag atte bu ñu indi tam wuuteeg ni nit ñi xam itam nit ñi bu ñu xamul bu ñu ko mënul a lijjanti ba analyser ko itam teewul ñu xam ne lu jub la lu jub la ci arab ndax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom bu fekkoon ne moom ci boppam moo ko wax du yàlla sax Muhammad arab la te arab moom seen wax la ñuy roy ñu ci def kay ñooy jàng jéem a xam nañ koy waxee waaye mënuñu ko critiquer. waaye ne na mu dem ba suñu borom xamal ko loolu ci lu dul loolu ci wetu wetu xam-xam rek ci lu dul wetu xam-xam gi itam wetu diine itam moom nekkoon na gannaaw bi ma leen waxee ne sëñ Tuubaa moo ko jàngal lu bari gannaaw bi Alaaji Malik moo ko mujj jàngal xam ba mu fi jógee jàngaat na fenn wala déet delluwaat na ci sëñ Tuubaa ndax relation yi mu am ak sëñ Tuubaa amu ko ak Alaaji Malik ndax sëñ Tuubaa la bokkal dëgg dëgg dëgg yoon wu ñuy aw te sëñ Touba di magam di sëriñam ci wet boobu am na jaar-jaar yi ñu bokk jaar ndax li ma doon waxtaane démb ci di wax ne sëriñ ñeent la salikul mujarrad ak salikul majzub majzubul mujarrad majzubu salik cheikh dafay al majzubu salik majzubu salik waxoon naa ne mooy jëmm ji nga xam ne sa juddu suñu borom jox ko wilaaya leeral xolam dénk ko secret yi mu dem ba màgg jaar nag yoonu tërbiya jàng lislaam def jihaadu nafsi nga xam ne moom secret asamaan la njëkk a xam ci tërbiya sharia loolu waxoon naa ne mooy Cheikh Abdou Cheikh Abdou Ibrahima Dafiq ñu ngi doon waxtaane sànq te mu waxoon ne bi mu amee juróom-benni at la tàmbalee jàng lawxul mahfuz la tablette gardée nga xam ne booba xamagul luy jihaadu nafsi xamagul luy àttee sharia jàngagul dara la ko suñu borom xamal mboot yooyu kooku moom it mëjtuub la waaye mëjtuubu saalik neen nag mëjtuubu saalik mooy ci gën a mat ci awliya yi ñooñu nag moom lañu moo tax nee ñu bàyyi ayobu moom matoon nett li mu ne mu ne seex ba muy jàng alxuraan tey xale